damay saluer donc sama jeunes yi nekk ci koñ bi parce que ñoom ay kanoon la ñu yore bu ñu xëyee ñooy jëndal nit ñi mburu ñooy génn paa yu màgget yi ñooy def lépp et loolu maa ngi ko doon xaar ci sapeur pompier yi pour ñu def ko sapeur pompier yi ñoo waroon dugg ci biir di indil nit ñi mburu di indil nit ñi ceeb ñu koy jënd suñu xaalis ñaanal ñu ko kenn nag jeunes yi moo bokkal koñ laay saluer or que li nekk fii ci biir fii ngeen mën a yem mais li nekk ci biir kenn mënu lu ko expliquer y a des yoo xamante ne seen borom néegi un mètre cinquante un mètre cinquante de hauteur mënuñu ñu lako wax donc fi ku leen ne mën na pomper ndox bi sax xalaatul ndox bi buñ ko pomper fan lay dem ñeneen lay lor encore xaalis bi xaaruma ci dara soxlawuma ci dara man damay julli di ñaan ci yàlla mu fajal ñu suñu soxla parce que je ne m'attendais pas à ce que ñoo dañuy jël xaalis di ko séddale nit ñi non non non non nañu def ay canalisation c'est mieux chaque année bu tawaatee ngay sarax nit ñi loolu amul fenn hier booy rey nañ fa benn serpent sama buntu kër gis naa fa ay ay poisson yu mag man bi ma xëyee 6 heures du matin je croyais que sax euh, ay serpent la mais ay jën la donc kon li nekk ci biir ndox bi kenn xamul lan la. assainissement dañ ko doon def mu gaaw quoi parce que dimbal boobu soxlawuñ ko ay saako ceeb ak ay orange money yooyu yëpp soxlawuñ ko quoi parce que maanaam comme 750 euh, milliards yi naan def nañ ko ci plan Orsec bi loolu ana mu quoi fu mu féete loolu lañ ko leeral quoi waaw lii à chaque année nii lay mel quoi. li nga fa war a jëlee mu jeex benn yoon loolu mooy solution bi quoi.